man dama asalaamaaleykum mm-hmm. maa leen du nuyu di leen ziar mm-hmm. dama màggali woon mm-hmm. maam ñoo ànd ñoo jóge fii talaata ci suba ñu ngi egg trois ñu ngi egg Touba ay quatre heures ñu xëyee ci suba si mu nekk ci liggéey bi bon woon man ma añ ba pare ma dem jumaa ji ziyaara ji ñoo demee jumaa ji ziyaara ji ma wàññeekuwaat ñu fekk ci kër gi laaj ko rakkam mu ne ma mi ci benn xaritam man ma wane ginnaaw dem ci ginnaaw mu ne ma maa ngi yaay maa ngi dem ngi dem ziyaara ji mhm. ma ne ko waa baax na mhm. ma konte ma toogee ba ay vingt deux heures benn xaritam daal di ñëw woo ma ne ma yaay ma gis la ñu génn ma ne ma ah nee nañ de Mourtalla dañ doon jote ba jam nañ ko ma ne ko jam ma ne ma waa cinq minutes après docteur bi woo ne ma soxna si naa def ma ne ko maa ngi fi rek mu ma foo nekk ma ne ko maa ngi Tuuba man ma yaay yaay Mourtalla ma ne ko waaw man ma ñëwal fekk ma ci hôpital bi léegi ma ne ko dafa urgent ma ne ma dafa urgent kay ma jóg dem bi ma jógee dem man jam-jam sax lañ ma waxoon mais bi ma demee ci laa fekk muy dañ koo gor. d'accord dañ koo gor mais ba tey leeralul la kan la doon joteel ak ki ko gor booba kan la ndax ku xamante ne ma loolu dox daje la. waaw ci la ma docteur bi ne ma nee nañ benn borom charité la joteeloon ci garage daaru bi. Mhm. mu daal di koy gor man docteur bi sax mu ma ko xamal. ki ma xam ma jàppanteel xamu ko. dama mm-hmm. ko dox dajale rek. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, benn borom charretier est-ce que war nay dox di liggéey di gàddu jaar si mel ni kuy jaay yàpp wala kuy kuy kuy gor ay matt ci màggal Touba. Ah, doy na waar doy na na waar trop xaw ma liggéey ko fàtte ko jóg xaw ma lan la kenn xamul waaw. ñu ne ñu après jot ngaa gis ki nga xam moom mooy borom sareet bi ko gor jot ko koo gis. déedéet gisuma ko de. gisuma ko dëgg yàlla gisuma ko gisante wu ma moom daal dem naa ba gis sama doom gisuma ko mënuma laa ne kii la. bi nga gisee sa doom muy ci anam bu metti anam bu doy waar. anam bu metti moom wax dëgg yàlla ma ko gisee moom mu tëdd moom ah xol yi tooy na boobu jamono moom dëgg yàlla. ba ma doon dikkireel say Mourtala ban xale la ci xale yi. waaw xale la rek comme xale yi xale la rek comme xale yi mais xale bu am kersa xale bu am avenir. ndax ren sax wax dëgg yàlla def na candidat libre da doon jàng ba ci ka yàgg. mu bàyyi. mooy ne day dem liggéey ndax jàppale ñu ci kër gi dem na ba def candidat libre ndax bu woon def benn formation yàlla dogal amul ñu waajal dem màggal waaye lii la yàlla dogal ñu sant yàlla rek sant yàlla. muy sa doom tey mu dem ci anam bu gaaw bi tey euh, lan moo la gën a marqué ci moom loolu xam ne mënatul génn sa bopp. yàlla moom li ma ko fekkee mu tëdd moom image boobu moom ma koo génnee sans gis naa ko mais sant yàlla rek sant yàlla rek ki jëf-jëf ju ñaaw ci faat ko ci anam bi nga wax ko lan xamal ni ko ni tas nga yaakaar te def nga lu ñaaw ah xëy na moom it loolu la yàlla dogal ci moom rek li yi di wax yëpp nee naa ko xëy na moom it yàlla dogal ci moom xëy na ñun lii lañ am moom it li mu am metti na mais nag nañ boole yëpp sant yàlla rek loo koy ñaanal. sant yàlla ah sant yàlla rek yal na yàlla def li gën ci moom rek. Mm. comme natt bu ko yàlla teg la rek yal na ko yàlla oyofal ci boppam rek comme ni ñuy oyofalee rek. denc nañ ba pare ana lan ngay wax yoon parce que bari na ñuy faat nit ñaari at ñetti gën a dox seen soxla lan ngay wax yoon ñu gën a xam ne tànk rey gi léegi. dafa am lu koy faj. ah bari na noonu trop trop trop wax dëgg yàlla bari na trop ndax nga xëy génn rek ñu dellu si rek ñu la faat nañ sa doom ah. dëgg yàlla bari na na yoon xam daal nu mu ciy def. Hmm. xool bu baax luñ ciy taxawee dëgg yàlla ku ko yàlla nattoo tamit metti na trop trop dëgg ñu ngi lay masaw bu baax. jërëjëf na la yàlla may lu ko wóotu. yàlla may lu xolu muñ. jërëjëf kon kàddu yi la yaayam yëkkati ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan daal murtala bi dem suñu boroom yërëm ko. te jéggal ko yàlla na coonaam yam fii waaye nanu xoolaat dëgg-dëgg wàllu ray gi dangay toog sa biir kër ñu fekk la fa ray la nga génn di liggéey ñu dab la rey la nga tëdd di nelaw ñu daal lay fekk nga nelaw ñu rey la dafay metti doo xam fan la nit di muccee ah mais ñi ngi féliciter encore une sunu police bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ndax nit ku faat nit balaa def ab jii ñu teg la loxo leneen li leen di dolliwaat ndax am xel du doy mooy que ni kuñ ci jàpp rek ñan la fexe teg loo xam ne ba ba ngay dee doo ko fàtte sa njaboot du ko fàtte parce que nag bakkan du lu nuy fowee yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf. yëkkati ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di sant yàlla bu baax ci sunu borom bi mu nu mayee ñu yeewu ba mën a dox di wax kenn ku ne gis na li nga xam ne moo xew fii ca jàmm Diamaguène waaye mu xewee ca Touba xale bi nga xam ne jógewoon woon na fii dem di màggali ndog ndog dal ko ci ba mu génn ci àdduna ñu toog ak waajuram waaye polémique yi bari ci lool kenn ku ne ak version bi ñu ci wax kenn ku ne ak li nga ciy wax souvent nag dama naan bu mbir amee balaa ñu génn benn information nanu dem fa source ba am laaj ñi nga xam ne ñooy partie l'essentiel yi waxtaan ak ñoom moo tax tay ñu déplacé wu jëw fii ci jàmm gën pour waxtaan ak ki nga xam ne moom la doom génn àdduna mbir mi nan la demee ak nan la génnee yéegee génnuk àdduna doomam ku baax ñu ngi lay nuyu. maa leen fay bu baax bi nan la. Ibrahima Diop. Ibrahima Diop xale bi génn àdduna mu tudd. mu tudd sëñ mu Diop. sëñ Moutala Diop war a toll ci ñaataat. ñu am 20 ans. ndax mën na nañoo xam ci ban anam la génne àdduna. anam yi mu génne àdduna mooy dañ ko rey. kan moo ko rey. non ko rey xaw ma. ci ban anam la ko reyee dañ doon xuloo wala dañ doon xeex wala accident wala na la. ba léegi yooyu yëpp man xaw ma ci dara quoi dëgg dëgg mënu ma la wax exact nii la ko reyee exact li tax mu rey ko exact lii lañ jotee ba mu rey ko. lan lan la annoncé dana la denn xanaa nit bu génn àdduna peut-être la wax cause bi bu dee accident ñu xam ne accident la bu dee xeex ñu xam ne xeex la ci a nan la ko annoncé. waaw nañ ko ci lan la mu ne Moutalla doon àtte xeex rey ko te it xamoo ki ko rey. non xaw ma kon da doon àtte xeex mais nekkul moom moo doon xeex. non ba léegi cause boobu. mënu ma ci sori parce que mënu ma la ne moom moo doon xeex wala da doon non man mun mënu ma la mënu ma ci gaam parce que kon dafa nekk ci enquête te ñoom enquêteurs yi ñoom ñu ngi enquête mënu ma ci sori. d'accord ñan ñoo la woo ay waajuram ñu sama soxna ak dëkkandoo yi ak ña fa nekkoon. d'accord bi loolu amee ñu assisté peut-être dañ fa fekk sapeur. wala police mu def constant peut-être ñu ñàkk ñu forfa ci ay kàddu loo xam ne moo xam ne moo yóbbu xale bi aussi itam. mais si c'est vrai mais man ba mu ñëwee automatiquement man man parce que boo ma déparé fii maa ngi àgg bët set. 11 ay ay 9 heures 10 baax mhm. te ba ma ñëwee aw ma leneen lu may lijjanti lu dul man naa lijjanti sama doom ay papier yu ko mën a légaliser ba mu ko yóbbu suuli ko. ci loolu dañuy yendu ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ba yàlla dimbali ñu ci boobu yàlla lépp lépp finalisé yi baax. ba ñu xëy nag vendredi lañ ko rob ci loolu laa am ci loolu mais amul leneen lu ma ci que bon du ñàkk am kenn ku lijjanti loolu mais man li ma lijjanti mooy sama doom laa ko mën a jotee ko ma na ko yàlla li ngay wax yow mi nga ne yow wee juróom peut-être yi police wax na la demee wala mën na la ci fee bi la demee wala mën na dañ koy auto wala dara. waxuñu la dara. non police euh, parce que man ci ba ma ñëwee ñi ko taxaw ñëpp ay mbokkam lañu. yu fa nekk policiers yi fa